atuma réeroon feeñ na ngéwal Seydina Fall Bougazelli mujj na wuy ji gendarmerie section de recherche yi ginnaaw ba ñu ko woowee ñaari yoon foofe ca gendarmerie wuy jiwul moom Seydina Fall Bougazelli ñoñam yim ñoñam yim bokkaloon parti sax doon nañ sàkku ci moom mu démissionné ngir gën a may justice mu def liggéeyam waaye mu mel ni boobule démission député APR si bi def na ko démb la jébbal ak démission kii di président assemblée nationale ci ab séance plénière boo xamante ni député yi doon nañ ko séq ak ministre de l'intérieur mu mel ni démission lu bees ci waa APR rawatina ci responsable politique yi nekk ca Géejawaay bu ñu fàttali Sall moom tamit démissionné woon na ci caisse de dépôt et de consignation ginnaaw bañ ko doon tudd ci wàllum ger jaarale ko ci lu jëm ci pétrole. ay rek mu mel ni tey ji ñoñam bi di Seydina Fall Bougazelli te mbokk ak moom géejawaay fekk ni fekk si na ko ci boobale démission. ginnaaw ba mu defee ay faux bond yu bari ñii di gendarme yi. Seydina Fall Bougazelli mujj na dem ànd ak ki nga xamante ni moo di avocat maître El Hadj Diouf moom maître El Hadj Diouf moo may sax ma ngay xamle ni Seydina Fall Bougazelli jël na lu toll ci fanweeri avocat ginnaaw ba mu génne woon ca boobule audience bu mu doon seq ak gendarme yi bi ko journaliste yi laajee moom Bougazelli mu ngi doon xamle ni moom démissionné wul benn yoon waaye ci guddi gi la nga kii di président Moustapha Niass daal di siiwal ak démission ak démission député bi di Bougazeli bi la démission di firndeel rek ni kii di Bougazeli mu ngi bëgg a perte yenn ci ay bataayam